حضرة القدسية kon ni ñu ko defee depuis 13h ñu ngi en direct ci aéroport bi nga xam ne moom moo di euh, ancien aéroport international bu Léopold Sédar Senghor ngir euh, teeru gi nga xam ne moom lañu ñu war a teeru ndamal l'islam ndamal der bu ñuul ndamal umma islamique bi yëpp waaye ndamal senegal euh, dafa am xibaar boo xam ne xibaar bu bees la bu ñu wër firndeel ko seetlu ko gëstu ko moom moo tax sang bi Cheikh ji mu ñuy jox xibaar bi Cheikh Abdoulahi euh, Abdoul Malik moo ñuy jox xibaar bi wër ci ñëwu xalif bi ndax day am tey wala du am bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu nuyoo mbooleem ñi ñuy seetaan di ma massaw mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne depuis 11h ñu ngi fii di tertu sëriñ bi information yi nga xam ne jot naa ko léegi ci porte parole Cheikh Mouhamed Mahi Cheikh Ali Cissé xamal na ma ne ma ñëw bi suba lay doon loolu nag mi ngi aju ci jaww ji ni mu mel te ñun ñi nekk fi nii Sénégal ñu ngi koy gis mooy ne avion bi mënta déplacé wu ñamee di ñëw Dakar mais ñëw bi léegi suba la ñu ngi massaw ñëpp di leen ñaan ñi delluwaat seen dal yi te buñ xamee kañ lay ñëw incha allah taala dinañ leen ko wax ci guddi gi pour bu subaa ñi dellu pour teertu sëriñ bi fii ci aéroport Léopold Sédar Senghor. kon xibaar bi loolu la. Euh, euh, waaw. ci ci en français. en français en français si on peut avoir une version française par rapport à l'information que nous venons de recevoir due aux conditions climatiques y a eu un changement. par rapport à l'arrivée du calife de Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass euh, merci bien nous rendons grâce à Dieu fois effectivement comme vous l'avez dit euh, à la dernière minute des contretemps ont fait que le calife ne pourra pas atterrir sur Dakar ce soir Inch'Allah il sera là demain euh, c'est la décision prise par les techniciens pendant la nuit on saura à quelle heure il sera là et puis on prendra les soins de communiquer avec euh, les populations, l'heure d'arrivée, Inch'Allah, demain. Mais nous en profitons vraiment pour remercier toute la population sénégalaise, tous les musulmans, tous les condisciples qui se sont déplacés aujourd'hui, qui ont passé toute la journée avec nous ici à Léopold Sédar Senghor. Et quand je dis toute la population, bien sûr, les médias que vous êtes tous, tant que vous êtes presse écrite, orale, audiovisuelle, vraiment les, la presse en ligne, Vraiment, on a constaté que tout le monde s'est mobilisé et kon xibaar baa ngoog depuis 13h ñu ngi en direct ci 2STV d'ailleurs la seule télé bu ko def en direct may fàttali tey rappelé ne loolu nag euh, am na ñoo xam ne tam ñu jàpp ne diw wala diw waaye direct bi ñuy def ci volonté wu 2STV la ak direction du kenn du dërëmu kenn du xaalisu kenn du kenn moo fay 2 pour mu def direct bi waaye direction wu 2S ak ay employés am ñoo am yéene ñoŋal ak gën a wekk ak gën a fonk jëf ju rafet ji Cheikh Mahi Ibrahima Niass def c'est rien de commercial dañoo gis doomi Sénégal def exploit boo xam ne bu ko français defoon mbaa bu ko américain defoon kenn du dégg ñun ñu ne du ñu seetaan jëf jooju di fëkku mbaa muy suulu danañ ci def suñu kéemtalaay kattan ba wane ko te ñu ngi taxaw o garde à vous ëllëg buñ ñu waxee tey ci guddi ni ëllëg bés euh, heure sàngam lay yegg si dinañ fi dellu defaat même liggéey comme sénégalais yi mun ko dund en temps réel en direct li waraloon njëkk fomm bi ñu fàttali ci récapitulation information mooy première fomm bi dafa dikk ba jub Mali ñu ne ko amoo droit dugg fi ndax Sénégal dafa bokk ci réew yi tëj ay frontière am ak mbali ci espace CEDEAO loolu moo waraloon première fo fomm bi mu dellu ñaame waaye yéenay dellu si waat fi nga xam ne moom moo di Sénégal jàpp ko ñu ne ko condition climatique yi ku xool jaww ji xam ne ni mu xonqee mën naa indi ay niir ak ay nuages yoo xam ne mën na euh, naqaril dem beeg dikk bi surtout ci kaw jaww ji loolu moo waral ñu fommandi ñëw bi du am tey ñëpp nañu delluwaat ci seen i kër te bu ñëpp yeewoo ñu déglu ci guddi gi lépp lu luñ ci am ci information concernant l'arrivée de Cheikh Mahi Ibrahima Niass heure bi exacte dañ leen ko wax nga xam ne du am benn réeroo du am benn njuumte dañuy yegg si waxtu woowu teeru ko tatagal ko delloo ko li nga xam ne moom moo di njukkal bi ñu ko ameel ndax lii mu def defal na ko doomu aadama defal na ko jullit waaye defal na ko doomu Sénégal et c'est à notre tour de lui dire merci et de formuler des prières à son endroit 2STV nous avons été là avec Wërsëg nous avons été là avec Barham Diane et Sidi de l'autre côté avec Grégoire et tous les techniciens Moussa Sen Baye Cham merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont travaillé comme des euh, comme des monstres pour que ces directs puissent se faire dans les de l'art ku nekk xam na ni conditions yi ñu nekk di liggéeyee c'est pas vraiment de meilleurs bi ñu xëyee ba léegi da ngay gis koo xam ne euh, maa ngi mel ne ku nekk ci saxru mu <laughs> mubarak ndax xiif mu métti mais demain incha allah bu ko jaraatee ñu defaat ko te duñ ci rëccu dërëm bu jare defaat dañ koy defaat incha allah njal nañu yàlla fayal Cheikh Mahi ba mu dellu siwaat ci Sénégal ba ñu wan ko cofeel gi ñu am ci moom yéen ñii seetaan téléspectateur u 2 yi ba subaak jàmm incha allah aduma مد فخر يفوذ منك الأنيم ثم نودي من حضرة القدس يا مد فخر يفوذ